صبيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بما أوحينا إليك هذا القرآن إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا inna shaytaana lil insaani aduwwun mubiin wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadis من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك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 sadaxalaawul enzim euh, jërëjëf euh, Anna Ndiaye euh, di ko ñaanal yàlla na yàlla muccal ko ak ndongo daara yi mu toogal macha allah mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam di nuyu mbokku téléspectateur wu Thiénaba TV di jiital ci nuyo bi la xalif général Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi sallam Euh, ci moom la ñuy jaar euh, nuyu xalif généraux yu nekk ci réew mi ak kilifa aada yi kilifa diine yépp euh, wàcc ci njabootam nuyu sëriñ Seexu Amadou Seck imaamu ratib bu Canaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi sëriñ Alsane Niana Seck chef du village bu Canaba monsieur le maire Talla Diagne premier magistrat de la commune ak monsieur Babacar wàdd sous-préfet bu Canaba ak ñi mu àndal ci liggéey bi yépp waaye nuyoo yooyu yépp nag dañ koy teg ci loxol sëriñ Mouhamadou Roqe Seck xalif tafsir ma dikkee Euh, di xalifa Baye Serigne Ousseynou Khoudia Seck euh, nuyu baay Baye Madick Seck euh, mi nga xamee ni macha allah moom mooy directeur u daara jii ñu toog kon di am mbégte di taxaw ak jàkkaarloog yéen ñëw ci yëg lépp institut Serigne Ousseynou Seck bi nga xamee ne moo nekk fii ci Canabakar Canabakar di jàngale alxuraan ki nga xam ne moom moo fi nekk jiite njàngale mi muy yaa Seyda Fatima Gueye ànd ko ak ñi ko àndal daara jooju nag ñoom ñooy waajal seen bis bu mag bis bi kañ la dimanche le 4 juin. Euh, deux mille vingt ñu war koo def ci buntu daara ji macha allah euh, war a nag toog ak euh, njaboot gi toog ak ñi nga xamee ni ñoo ŋànk daara ji muy direction daara ji waaye toog ak ñi nga xamee ni ñoom ñoo jiite daara ji ci wàllu parents d'élèves di leen jàppale ak jàngalekat yi ak ndongo daara yi war a waxtaan nag jëmale ci bis bu màgg boobu kàddu gu njëkk gi mu ngi dem ci yaa Seyda Fatima Gueye mi nga xamee ni dinañu fàttali daara ji naka la sampoo ak naka lay doxee daara ji yan branche moo fi nekk. Euh, ci wàllu njàng ak njàngale euh, dinañu euh, fàttali li nga xamee ni macha moom tamit moom la ñu war a xam muy lépp loo xam ne rek dafay jóge ci daara ji waaye dina yëkkati woote tamit jëmale ko ci bis bu màgg boobu bu daaneele moom soxna Fatima Gueye Serigne Cheikh Tidiane Seck moom di doom ci Baye Serigne Madické Seck macha allah teewal ko fi teewal fi ay magam teewal fi njaboot gi moom tamit dina yëkkati kàddu gu woote gu yaatu rek. Euh, woo ñi nga xamee ni ñoom la ñu seqal mbir mi Oustaz Mamour Mbeng euh, moom tamit parents d'élèves kàddu parents d'élèves yi lay yëkkati waaye dina wax ci wàllu organisation euh, bala moo daaneel nag dinañu fàttali kan mooy parrain bis bi ak marraine bi ak ñi nga xamee ni jox nañ leen ci ay cër muy invité d'honneur yi bu ko defee rek muy mbégte moo xam ni dañ koy partagé bu daanelee macha allah ñu daal di ànd ak yéen rek daal di yëkkati jataay bi. Euh, ñaan nag yàlla yàlla dajale ñu fii euh, dimanche le 4 juin mille 2023 muy conférence conférence su annuelle bi daara euh, Serigne Ousseynou Seck bi nekk Thiénaba Gare macha di def kon kàddu gi mu ngi jëm ci yaa Seyda Fatima Gueye billahi min alsheytan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli kon yéen mbokk jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ah, ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyoo nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi te nuyoo bi lislaam te mooy yàlla jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem wàcc ci yéen ñu ngi nuyu waa jataay bi yëpp di jiital ci nuyoo bi nag suñu xalif muy Baye Assane Seck ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ziyaar di nuyu imaam ratib sëriñ Cheikh Amadou euh, mu jàllale ñu ko ci imaam yëpp di nuyu borom dëkk bi sëriñ Alxasan ñaan mu jàllale ñu ko ci ñi mu seqal liggéey bi yëpp di nuyu sëriñ Talla Diagne moom it mu jàllal ñu ko ci nit ñi nga xam ne ñu ngi ci ginnaawam ñëpp waaw di wax ni suñu bisu conférence bi dafa jub si defe naa la 4 juin incha allah léegi ñu doon wax ci daara ji ni muy doxee. daara ji daara internat la ak ak ak ak externat daara ji yaakaar naa ni fi mu commencé suñu borom kër moo ko samp te mooy sëñ Madika Seck bi mu ko sampee mu jël ko euh, njàngale mi teg ko ci sama loxo euh, ñu nekk ci ci liggéey bi ak suñu naataako yi ñu toogal fii euh, Oustaz Abdallahi Dramé ak Oustaz Souleymane Gueye Seyda Aïcha Gueye ak Seyda Soxna Xadi Jenn ak euh, Serigne Fadil Fall ñu ak képp ku ñu jàppale ci liggéey bi rek euh, daara ji internat la ak externat externat yi dañuy jàng di wàcc bu ñu xëyee 9 heures demi ba 1 ñu wàcc ngoon gi bu ñu gontoo 3 heures et demi ba 5 ñu wàcc internat yi nag ñoom ñoom ñoo fi continuer ne ba ba ñu waajal tabaski incha allah ñu doog leen delloo seeni waajur euh, daara ji tamit ñu ngi sant yàlla yàlla ren. doxal na ba ñu am franco arabe franco arabe bi tamit euh, ren yaakaar naa ni comme que commencement la dañ cee def rek benn classe euh, CI ak ñetti classe jardin yaakaar naa tamit ñu ngi doxal euh, ba yàlla mi ngi ci may ay ndam ndax compo na ñaari compo waaye daal ñu ngi sant yàlla bu baax am nañ ci ay résultats yu baax waaw ñuy waajal bis boobu nag. bis bi ñu ciy woo mbooleem jullit boo xam ne day wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di ci woo sama mbokk jigéen yëpp képp koo xam ne rek yor na mbootaay fii ci cana li ko wër ak ci àdduna bi yëpp ñu ngi la ciy woo euh, waa fas jom ak euh, képp koo xam ne yor na mbootaay cana ba képp koo xam ne yor na daara cana ba ñu ngi lay woo di ko teg ci loxoy oustaz daam xulle mu wool ñu daara yëpp ñu ngi woo képp koo xam ne tamit xale la ci biir dëkk bi ak ak ci biti dëkk bi moom it ñu ngi lay woo ci suñu bis boobu comme niñ ko daan defee rek comme niñ ko daan defee bis bu nekk rek jàpp ci defar conférence bi ndax ñu am ci réussite totale am ci ndam lu kawe suñu njort yàlla nañ ko yàlla yombalal yàlla nañ ko yàlla may loolu daal moom moo nekkoon li nga xam ne moom mooy woote bi suma juumul ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yëkkati nuyoo te muy nuyób lislaam te muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa jëmale ko ci mbokki jullit yëpp waaye it di ci jiital suñu kilifa suñu xalif général Baye Serigne Xasan Seck di ko ñaanal yàlla yàlla guddal aw fanam euh, di nuyu it imaamu ratib Serigne Cheikh Amadou di nuyu chef chef de village Serigne Alsane Niane Seck di nuyu it monsieur le maire Talla Diagne mu jàllaleel ñu ko ci ñëpp macha allah di nuyu it euh, kilifa kër gi Serigne Mouhamadou Roqe Seck waaye it di nuyu it Serigne ma Madike Seck macha allah defe naa ni kàddu yi nag duñ ko guddal. Euh, li ñu fi tax a toog njortu naa ni ñëpp xam nañ ko te muy bis boo xamante ni bis mu ñu dëgmal la mu nekk bis boo xamante ni bisu bisub alquran la ñu fas ne ci woo képp koo xamante ni nee nga ñoñu alquran nga wala yaa ngi bokk ci ahlul quran ñu ngi lay woo ci bisub alquran muy nekk la 4 juin incha allah euh, ginnaaw loolu nag ñuy fàttali mbokk yi li nga xamante ni moo di alquran parce que buñ nee bisub alquran rek njortu naa ni tudd nañ lu rëy waaye it wax nañ lu rëy waaye it taxawal nañ lu rëy te mooy lan mooy alquran ndaxte boo xoolee alquran fépp fu mu jaay fépp fu mu jaar rek bàyyi na fa trace boo xoolee ci jamono ji nga xool ni ban weer moo gën ci weer yi ñun la weeru koor lan moo tax ñun la alquran ci la wàcc ban guddi moo gën ci guddi ñun la laylatul qadr lan moo waral loolu ñu ni alquran ci la wàcc ñu ni la kan moo gën ci mbindee fi ñu ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo tax ñu ni ndax alquran ci moom la wàcc kan moo gën ci malaayika yi ñu ni euh, jibril lan moo tax parce que alquran ci moom la doon jaar di ñëw ci sang bi kon nga xam ni alquran fépp fu mu jaar rek bàyyi dafa tras ndax alquran dafa wax ni law anzalna hada alquran ala jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xasyatillah wa tilka al amthaalu nadribuha linnaasi laallahum yatafakkarun nga xam ni kon alquran bu ko yàlla jëloon wàcce ko ci montagne mu ni montagne yi danañu mokk ngir lan ngir ragal gi ñu ragal yàlla waaye alquran tamit ngir lan ngir ngir diis gu alquran diis kon loolu euh, yàlla jël ko jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nit ñu bokk ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag war na ñuy fàttaliku alquran fu ñu toll waaye war na it fu ñu tollu di taxawal li nga xamante ni moo di bisub alquran kon nag bisub alquran boobu moom la ñu dëgmal jëm ci ndax alquran li muy defar ci société bi dafa bari aussi it li muy def ci xol yi dafa bari parce que buñ nee la alquran lu ko tax a wàcc nga ne alquran defar moo ko tax a wàcc ndax wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaau moo xam nga yor tawatu xol mbaa nga yor tawatu yaram mbaa tawat goo mun di doon nga xam ne alquran moo xam nga koy déglu moo xam nga koy jàng dana defar li nga xamante ni moo di sag tawat googu waaye mu ni ak lan mu ni wa rahmat ak yërmande waaye yërmande googu ak tawat googu muy faj ñen ñëw ko moom mun la euh, lil na loolu jullit ñi ñëw ko moom kon nit buñ taxawalee bisub alquran euh, jullit ñi lañ ciy woo kon képp koo xamante ni yaa ngi dégg suñu woote bi ñu ngi lay woo ci bisub alquran waaye am ñi nga xamante ni nag gëmuñu loolu gëmuñu alquran ñu ni kon alquran lan la leen di fayee mu ni lan wala yazidu zalimina illa xasaara ñooñu nag ak perte perte perte lañ ciy jëlee kon loolu it jar nañu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax kon it euh, ginnaaw ba ñu jàllalee loolu ba noppi ñi ngi woo bépp jeunesse bépp jeune boo xamante ni yaa ngi yeewoo ci commune bu Thiénaba bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw bàyyi ñu bàyyi góor bàyyi jigéen di woo it suñu mbokk yi nga xamante ni ñoom la ñu bokkal nekk Cees di sàkku li nga xamante ni moo di xam-xam ñoom it yépp ñu ngi leen di woo ci bisub alquran parce que it mënuñ leen a woo ci leneen lu ëpp bisub alquran bisub alquran njortu naa ne dara mënu ko ëpp kon ñu ngi leen di woo ci bisub alquran euh, di woo it euh, mbokki sàmben ak mbokki ñi nga xamante ni euh, mooy waa kër maam borom tuuba moo xam wëllër yi ñu fa am ak ñi nga xamante ni ñoom lañuy ñuy ànd di doxal liggéey bi moo xam ci liggéeyub alquran mbaa ci liggéeyub leneen ak leneen lu mu di doon waa kër Seydil Hadji Malick waa kër Boukounta waa kër maam Baye Niass euh, këru diine yépp rek ñi nga xamante ni ñi ngi jëflante ak ñoom buñ jaaree ci turi rek dafay xaw a bari waaye it euh, ñi ngi woo mbokk moo xamante ni ñu ngi koy woo ci daara te muy euh, Cheikh Moustapha euh, moom jàmbaar lool ci li nga xamante ni moo di daara ak ak njabootam kon nag ñu ngi koy woo ci bis bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal te muy la kat incha allahu rabbi ñu ngi ko ciy woo di ko ci bàyyiloo xel bu baax a baax a baax di nuyuwaat ñëpp di gërëmaat ñëpp euh, parce que kàddu yi moom jërul muy gudd ci li ñuy demaat rek mooy ci li nga xamante ni moo di daara moom lay taxawal parce que it borom xam-xam dañ lawla al ilmu la kaana annaasu kal bahaim nit bu amul xam-xam rek moo bàyyi ma ñoo yem kon ñi nga xamante ni ñu mel ni suñu yaay Fatima ak euh, euh, oustaz Darame ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni ñu ngi taxawu daara di sonn ci daara guddi ak bëccëg kon loolu borom xam-xam yi wax loolu la ñu taxaw ngir fas yéene euh, loolu bu mu am te muy law la la ilmu la kaana naas kal bahaim nit bu jàngul rek mook bàyyi ma ñoo yem kon nag na ngeen xam ne yéen yéen a ngi taxaw ngir xeex loolu kon nit loolu it ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala wa man wala mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk yëpp di leen ziara di ñaan sunu kàddu fekk leen ci jàmm. di ci jiital sunu euh, kilifa ñun ñëpp ca mooy bàyyi sëriñ Assane ñu ngi koy nuyu di ko ziara moom mi nga xam ni mooy euh, kilifa Thiénaba ak lépp lu ci aju di xalif général. ñi ngi koy nuy di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam di nuy imam ratib imaam Serigne Cheikh Amadou Seck ñi ngi koy nuyu ñi ngi koy ziyaara ak mboolem a ima yi ba ci euh, imam Ibrahima Ngom mi nga xam ni moom euh, lañu addoo ci euh, barbam ca mooy fii Thiénaba Gare xam mooy imam ratib di chef de village bi moom ñi ngi koy nuyu di ko ziyaara di nuyu autorité administrative yëpp commencé ko ci monsieur le sous-préfet monsieur Babacar ngi koy nuyu di ko ziyaara monsieur le maire de la commune ñi ngi koy nuyu di ko ziyaara waaye sëriñ Alassane ñaan sakkit ñi ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jox wàcc waayam dugg ci euh, kër maam Ahmadou Ndak wàccaat ci biir kër tafsir maam Madike Seck di nuyu sëriñ Mouhamadou Roqe Seck mi nga xam ni mooy kilifa euh, li ñu def nii ndax dañ daara sëriñ Ousseynou Seck euh, rakkam di sëriñ Baye Madike sekk ubbi daara ji di directeur bi jël ko teg ko ci loxo soxnaam kon ñi ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jox wàccuwaayam waaye dugg ci njabootuk euh, tafsir maam Mor Gueye di nuyu euh, ki nga xam moo di xalifam El Hadj Pape Mor xam ni bu xoolee lii day xam ni sama njaboot ñoom ñoo toog ni sëriñ Mouhamadou Roqe di xoolee ni sama njaboot a toog moom lay xoolee ni sama njaboot ñoom ñoo toog kon tey dafa mel ni euh, li ma fi daaw rek laay waxaat dama ni ta surtout tafsir ma Madiké ak surtout tafsir maam Mor Gueye ñoom buñ àndee buñ ubbil woon daara sax daara day ñëw ci ñoom leen ubbi leen ma parce que munta munta ñàkk mënut a ñàkk parce que loolu rek la euh, mbir mi mën a joxe mën naa gën a kawe mais maa ko gàttal foofu rek macha allah kon ñi ngi jaajëfal nag soxna Fatima Gueye waaye di jaajëfal sëriñ Baye Madika Seck mi nga xam ni euh, keroog bi nga xam ni waajuru soxna Fatima di sama Serigne di Oustaz Aline bi mu ko koy jox dañu ko na jàngale maam na ko téye ci daara ndénkaan daal mu nekkoon daara Serigne Baye Madika Seck wéyal loolu ndénkaan ba soxna Fatima Gueye di def liggéey bu extraordinaire. kon mbokk yi jamono ji yaakaar naa euh, daara fu mu wootee war wuy ji de waaye daara ju jigéen yor nag rawatina ci daara fi jamono toll jigéen mën a toog ca daara dëddu lépp suur lépp ba nangoo des ak daara mbub mu rafet wala daal wu rafet bu koy sol sax daara la ko fas yéene solal waaye amul jotu génnet ci leneen lu dul daara kooku moom yaakaar naa bu wootee toogaay amatul lii nag euh, dañuy jaajëfal bu baax sëriñ Baye Madika Seck ci ni mu yombale njaboot gi ndax euh, day toog rek di def ñu naan mbay mi rafet na waaye ak bëti baay ak bëti baay maam bu mbay mi rafetee rek bëti baay moom moo ci ànd mooy sëriñ baay ma di ko sekk mooy le très grand superviseur di ko superviser. ba pare nag euh, moom daaraam day bëgg xale yi dëgg la ci daara la nekk de mais day bëgg xale yi di noos fu mu loolu nag man xam naa ci dara ndax maa ngi wax ci turu parents d'élèves yi di wax ci organisation lan moo tax may wax ci turu parents d'élèves yi mooy sama doom soxna Soumaya Mbengue fii la mokkale alquran tey fa mu nekk dëgg la ma ngay jàng xam-xam de mais ma ngay jàngale alquran aussi nekk na fa yaa sayda di jàngale alquran fan la ko amee fii fii la ko amee ba pare amee ko nag majjaanan mooy gratuitement kon euh, euh, li li Oustaz alin Guèye daan wax naan sama baay moo jàngal mag ñi ma jàngal gone yi soxna Fatima Guèye bu ko neexee ni sama baay moo jàngal maam moor ma jàngal doomam kon loolu lañ fi amee euh, ma gis nag lu bëri ci daara ji parce que daara joo xam ndekkee nga fa aña nga fa reere nga fa lu nekk fekk na la fa daara jooju moom xam nga seen lépp kon ñi ngi eh, woo parents d'élèves yi ni daara ji wax dëgg yàlla jëmmi daara sociale la mais rawatina daara ji daara ji moom xaarul rek que da ngay fay pour mokkal moom dafa gëm la droit à l'éducation islamique mooy nit ki dafa am àq ci jàng moo tax boo ñëwee alhamdulilah li la warloog daara ji boo ko defee moo ñu gënal de waaye yenn saa yi man ma xam ci dara yenn saa yi mu manqué mais dañuy gëm ni xale bi moom daa war a jàng te loolu moom sayde lañ ci témoin oculaire la lañu ci kon ñi ngi euh, nuyu mbokk yëpp di leen ziara bisu alquran nag bu ñu koy wootee ñun daara lu leer la ñuy wax dañuy bëgg ki ñu wuy si buy ñëw ni muy sañseele jëmmam mais noonu lay sañseele poche yi parce que daara mooy kii taxaw ci société bi ni man je suis un type de citoyen exemplaire ndax man daara maa yëkkati sama loxo ni bala ma laaj sama réew lu ma defal damay wax ni man lii laa defal sama réew la la daara defal réewam xanaa nag créer ay emploi yu bëri moom toogul sëriñ daara bi toogul naan sama réew na ma jox poste bu ma liggéeyee moom daa ñëw créer toog pour créer boppam emploi mais créer aussi nit ñi emploi xoolal ni mu jëlee ay jàngalekat xoolal ni mu joxe ay façon métier yu feccante ko ay liggéey ñu ci gis seen bopp ah ci lépp bu ma neexoon lim ko mais du ko du ko jar parce que gënuma leen neex xel rôle daara ci biir société bi euh, dafa dafa dafa nekk loo xam boo xoolee gis boo làmbee daj ndax daara lu amal njariñ société bi la yamatul rek ci daara moo génne imaam beeg bu ñu tudd doom ak bu ñuy mayee euh, ab seet ak bu ñuy euh, rob kenn nag yu mel noonu ak bu ñu miraas daara romb na foofu de dëgg la daara bi ngi def loolu mais day defaale plus daara dafay contribuer au développement de ce pays là kon loolu aussi ñi ngi koy jaajëfale daara kon autorités yi ñuy seetaan nañu xam ni bàq tooy na buñ jiwee rek mu sax kilifa diine yi bu ma nee autorité religieuse la ak administrative waaye aussi ak ñépp ñi nga xam ñoom ñoo ñuy déglu di ñoo xamante ne bii bu nu foboo wala ñu solu wala ñu waaj tàggatoo fa lan jëm mooy alquran moom moo tànt gis nga sunu euh, doom ji di sëriñ Madické sëñ Cheikh sëñ Cheikh mu sëñ Baye Madické appel bu ak extraordinaire bi mu def gis ngeen li mu wax alquran moom fu mu jaar rek bàyyi fa ay jeexantal gis ngeen nee na malaaka mi gën ci malaaka yi moom moo ko indi lan moo indi ngëneel googu alxuraan la indi parce que moom mooy waxu yàlla waaye aussi mu ñëw ci nit ki gën ci nit ñi waaye sax ñëw ci dëkk bi ñëw ci gën ci dëkk yi kon ji euh, ruuxul amin moo ko jox muhammadul amin ci baldul amin waaye ñu wàcc wàcce ko aussi ci làkku arab muy làkk wi gën ci làkk yi waaye wàcce ko ci xeet wi gën ci xeet yi ba pare nag ki koy jàngale yàlla ni ni moo gën ci yéen ki gën ci yéen mooy ki jàngale alqur ki jàng alquran di ko jàngale kon xayriye googu daje ci alquranul karim képp kuy dépensé na xam ni kon fi gën ci fi ñu dépensé mooy alquranul karim dërëm bi ñu dépensé ci alquran beneen dërëm bu ñu dépensé wul feneen war na koo ñee ca nag fii laay waxee nii ñun daara ñoo woote tëdd muy dox ñun dong ñoo ko am na tëdd muy dox moom ñun daara ñun ñoo ko am tëdd muy dox mooy ñun daara maa ngi jublu ñun lislaam ndax da ngay euh, ney di wér di mën di julli di joxe azaka di am tiyaaba mais boo demee ba ruux gi rot ñu def la ci sa bàmmeel mënatoo julleeti de mënatoo woorati de waaye yaa nga tëdd muy dox de lan moo tax da ngaa jël sa alal nga def ko ci bâtiment bu ñu tabaxal daara da jël sa alal nga def ko ci luy doxal daara loola mooy wane daara joñ ko defoon nit ñi mokkal sa tiyaaba di la fa fekk. kon daal euh, ñi ngi woo parents d'élèves yëpp di woo dëkk yi ñu wër yëpp. Euh, di njaboot yépp macha allahu rabbi euh, waaye waa organisation di ay jàmbaaru fàq tëdd du ñu fàtte benn yoon euh, waa ci ba Seck ak daara ji seen ànd ñoom rafet na ci organisation bu ma duggee ci lim rek damay dese ndax équipe bu ñëwee di organiser boo limee kenn ñaar keneen ka dina ne xanaa ñoom kon yëguñu man maa ngi fay ñëw mais waa ci Raba Gaar aussi kenn de bu ñu des parce que xam nañ daara ji aussi seen daara la ndax bu nee daaree sëriñ Ousseynou Seck dañ ciy boole di ca na bagaar loolu moom maa ngi ko gis si euh, mbir yi bu ko defee mbokk yi fi ñuy jeexale nag ñi ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoom lañ tudde bis bi mbokk yi seet leen ku nekk colonel ba am garaatu ñu tuddee ko bisu alquran xam nga colonel colonel moom grade la colonel Issa Ndiaye la ñu wax grade la waaye imaginal grade bi ca laafuwaat mooy kat ba ngay dund am nga honneur bu toll ni ñu tudde la bisu alquran loolu nag boo ko gisee rek mooy kon colonel ba daa saf sàpp ak diine daa saf sàpp ak mbaax ba daara ji ràññee ko ni sunu bis bi kat ren da naan tëf ni colonel lañ ko tuddee kon euh, moo colonel sa bisa ngi noonu képp ko am ci sa nit ñi nga xam yàgg leen rendre service rek ne leen ilaa ca la ba incha allah ndax bis ba foofa la waaye ñu ñëwaat nag ci euh, marraine bi Adja Soxna Gueye Mboup ndeysaan bi muy gëj xaramani shérif ni yàggul dem na ci umra bi dama ne ko dëgg la de jëliwul nga kaala ga de gaa ndax dangaa umra ji woon waaye nag imaginal grato ñu ni tëf ni bisu alxuraan ngoog yow leen ko marraine kan moo la ko marraine sa doomu sëriñ di sa xarit ngeen nekk ñaari ñoo xam ni alxames ngeen ak ajuma bis doxul seen diggante ñu xam ko ngeen maase tukki moo tàqale moo leen tàqale mais tàqale wu leen aussi mu xalaat ni sama bis bi kat ren dama koy marraine sama sama seex sama doomu ndey euh, bu ko defee ayaa soxna képp ku ma saan xelal dala leen woo kon neel sa nit ñépp rendez-vous benn la mooy la 4 incha allahu rabbi le 4 juin 7h30 nag moom ku ñëwul ci ñii nga xam ne maaj moom am na fépp maaj laa wax am na fépp mais am na daara sëñ Ousseynou Seck de maaj daara yoo dem am na fa mais boo ñëwee fii nga xam ne maaj am na fi macha allah chorégraphie boobu ñoo war a génne 7h30 kon ku ñëwul ah li ngay tardé de moom lu rëy lay doon euh, mbokk yi euh, ngeen baal ma daara ji boo fi nekkee dama yëg lu baree baree baree bari waaye bala may jeexal maa ngi yóbbante ak ñaan goo xam sama sëriñ baa ma ko yóbbante woon ci askan wépp moo ne ma foo déggati bu ma leen jiitu jee ma ne ko yàlla na yeex oustaz mu ne ma loolu mënut a ñàkk muy oustaz Alioune Guèye mi waajuru euh, soxna Fatima Guèye deneen wax yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jégal kon képp ku seetaan vidéo bi na wax ne oustaz Alioune Guèye yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jégal heureusement sax doomam El Hadj Moussa Ndiame El Hadj Moussa yàlla na yàlla fayal ñu la euh, ñun dañoo bëgg di communiquer ci lu ñuy xam El Hadj Moussa Ndiame ak Thiénaba TV moom loolu moom est-ce que kenn mën naa dem bàyyi moroom ci El musa Moussa Ndiamé mënut a dem bàyyi Thiénaba TV mais Thiénaba TV mënut a dem bàyyi ko mais El Hadj Moussa Ndiamé ak daara yi mais El Hadj Moussa Ndiamé ak lu taq ci ngéyeen encore waa ndax man maay toog di tooñ waa ngéyeen ngeen baal ma ni waa ngéyeen dañoo mën a sot waaw dañoo mën a sot mais xam naa dàq ñoo sot waa cekkeen aussi loolu moom xam naa ko waa ngéyeen moom gaa mën nañoo sot de mais dàq ñoo sot waa cekkeen bu ko defee nag ñaari famille yooyu la ñuy wooteel incha allah kon ñu ñëw ñëw ci fi ñuy jeexale ci wàllu euh, invité d'honneur yi honneur ëppul ñu jox la ko ci bisu alquran ku mel ni sëriñ Abdoul Ahad Ndiaye sëriñ fone Saw maa ngi jégalu macha allah waaye sëriñ euh, Fallou euh, Mbay ak euh, soxna maam Jaara Diouf soxna faatu Ba soxna Kumba Ba ñooñu ñëpp ñu def leen honneur ci bis bi kon mbokk yi woote baa ngi noonu rendez-vous kañ la dimanche le 4 juin 2023 7 heures et demie pile mise en place 8 heures. lu ci tegu rek yëgal ni tardé nga maj bu njëkk bi waaye lu mu yeex yeex yeex quinze heures incha allah dañu xewlu dañu julli dañ joxante rendez-vous bi beneen yoon. kon daal sama nijaay El Hadj Moussa Ndiame tey sa kër bopp nga ñëw sa liggéey bopp nga ñëw euh, loolu moom la ca des li ci manqué lépp yow xam nga fa ngay jaar ndax foo miin nga ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, mbokk julli kon woote baa ngi noonu muy euh, dimanche le 4 juin 2023. Euh, muy conférence su euh, Daara institut Serigne Ousseynou Seck euh, bi nekk Thiénaba Gare ñu war koo def fii ci kanamu Daara ji ñu ci woo mbokk jullit yëpp di ci woo bàyyi sëñ bi Baye sëriñ Assane Seck ak njobootu maam Ahmadou Ndak Seck ak waa Thiénaba yëpp di ci woo mbokk jullit yëpp parents d'élèves yi bàyyiwuñu kenn waaye dëkk yi nga xamee ni tamit ñoom ñoo wër Thiénaba te dëkkandoo bi rafet lool macha allah bàyyiwuñ ci kenn surtout nag waa Thiénaba Gare yi nga xamee ni ñoom ñooy dalal gan ak waa Cawaare ak kër Bande Ñang ak kër Mamour euh, kër Ibra Ñaan euh, kër Maysa macha allah ba xay babal euh, ak kër Mëgay Ndaw bàyyiwuñ kenn ak Touba Gueye macha allah ñëpp rek nañu xam ni bisu alxuraanul karim la. ma fàttali ni dimanche lay am le 4 juin 2023 fii ci Canaba Gare ca kàddu yi njëkk ya yaa Seyda Fatima Gueye fàttali nañu wàllu historique gu daara ji. fàttali ñu tamit ni daara ji internat la ak externat waaye am na franco arab Euh, boo xam ni macha allah mu ngi yëngatu ci wàllu former xale yi xanaa di wax rek euh, kilifa yi ñu ñaan euh, ndax yëf yi gën a saawaan baawaan comme ni ma koy waxee yàlla na yàlla fekke fekkeloo ñu te tal ñu talloo ñu ko ci bark Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa bi mu daanelee moom yaa Seyda Fatima Gueye Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck bu bàyyi sëriñ ma dikk Seck macha allah dégg ngeen kàddu yu am solo yi nga xamee ni yëkkati na ko fàttali ñu taxawaay yi ñu war a am ci alxuraanul karim taxawaay yu ñu war a am ci daara yi. waaye taxawaay yi ñu war a am tamit euh, ci ndongo daara yi euh, xirtal leen rek macha allah ñu jàng alxuraan ak ngëneel li ci am yëpp macha moom euh, Serigne Cheikh wax na ko waaye yëkkati tamit kàddu waajuram woo mbokk jullit yëpp ci bis bu màgg boobu ñi nekk ci biir Canaba wala ñu nekk ci bitib Canaba yëpp ñu leen di woo di leen ziyaara oustaz Mamour Mbeng macha allah moom tamit. Euh, yëkkati na kàddu parents d'élèves waaye wax na ci wàllu organisation yi soo soññiwaat leen bu baax a baax euh, parrain bi comme ni mu ko waxee euh, colonel Issa Ndiaye moom mooy parrain bis bi marraine bi di soxna Guèye mbub macha allah mi nga xamee ni doom la ci Baye Mor Fati Mboup ñuy profité rek di ñaanal Baye Mor Fati mbub yàlla na yàlla duwal ko àjjana te mu dëkk fa ci barke Seydina Mouhamed salaahu alayhi wa salaam invité d'honneur yi abdu laxaat Ndiaye ak Foné saw ak Serigne Fallou Mbaye ak Mame Diarra ak Fatou Ba. ak Kumba Ba ñooñu ñooy invité d'honneur yi macha allah ñu leen di euh, tatagal euh, bu baax a baax programme bi 7 heures euh, la ñuy commencé incha allah jàpp 8 heures 30 moom mooy mise en place bi 8 heures 30 ba 15 heures njàngoom alxuraan la ak animation waaye bu ñu demee ba 15 heures nag macha allah ci la ñuy nag ñaan rek daal di dem nag yëf def def yëfi njaween yi. Euh, macha allah di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla fekke lu ñu ko euh, ci barke Sidina Muhammad sallallahu alayhi di jaajëfal ñi nga xamee ni gungeen nañ ñu euh, ci ci ci ci ci jataay bi muy oustaz Abdallah Dramé di jàngalekat nekk ci daara ji ak oustaz Souleymane Guèye moom tamit jàngalekat la nekk ci daara ji ak soxna Khady Diène Cissé ak soxna Aïcha Guèye macha allah ca franco ba nag ñuy jaajëfal tamit madam may madame a kan ak yaa Sayda si ak secrétaire bi di Kumba. Euh, kan macha allah Kumba euh, Sali kan euh, ñu koy jaajëfal di jaajëfal képp koo xam ni li tubaab naan de près wala de loin jàpp nga ci daara ji rek ñu ngi lay jaajëfal di ñaan yàlla yàlla na yàlla fay ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kon bis baa ngi noonu muy dimanche le 4 juin mille 2023 ñu àndoon ci ak Talla Niass Diop ci caméra bi Moussa Ndiame Gueye ci waxukaay gi joxanti dig daje yeneen i jataay jàmm ak xéewal ak sutura yàlla na yàlla def ko Moussa Wane baawaan ci canaba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 cenebati walisay bi ahdun yab xëy an nasuunahu